jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet li ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ñu dafa meew lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew mu mel ni manifestation ya daal dinay tàmbali rek gannaaw ba nga xamante ne ñoom candidat yi ñu koy wax ne dañuy battre campagne te kenn amuñu ci dara mu mel ni ci rek Ndakaaru Saint-Lazare ak fa nga xamante ne moom la manifestant ya daal di daje rek daal dinay tàng jër ndax ñi di takk der yëpp daal dinañuy génn rek taxaw ca taliba jàmmaarloo ak ñoom ca diwaanu Thiès nag daal dinay tàng jër am na ab takk der boo xamante ni sax sax daanaka ñi di manifestant ñu nga koy dóor ba muy bëgg a dee rek mu daal di doon ay image yu choquante yoo xamante ne ñu nga koy nemmeeku rek jamono ji diwaanu Thiès li ni mel lañ fa daal di nemmeeku rek ak takk der boobu nga xamante ne rek jamono ji ñii di manifestant yi nañ koy rek jàpp dóor ko ba muy bëgg a dee mu daal di doon mbir mu doy waar rek mu mel ni li ni mel nag na mu tàmbale daal nay ñaaw lool ci rek Sénégal ak manifestation yi nga xamante ne daanaka mu ngay jur fitna rek ci réew mi.